salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum kattu ma data tuunu ndeyam nuyoo takk leen ndey écouteur yi awma temps Coura Macky yaa ngi doog am combat ba nga juddoo ba tey tooñ nga fi ku ne wax nga buggaan daa ëmbal diw iran daa ëmbal diw ku ne tooñ nga ko fi mais mënoon nga ma fee bàyyi man boss day négri l'homme qui n'a rien jamais perdu de sa valeur l'enfant bien préparé et sa famille lan yaa ngi doog am combat bu reculé de dafa toog ci télé bi Seneweb mu ne Adamo Sankara mbay da koo fay xaalis bu bëri pour mu génn daan ne njoletaal cagala Sankara Mbaye katt na ko kii moo mën a duul la bi ba ma koy wax nga xam ne ni ba léegi nii damaa xulloog Sankara Mbaye man lay bañ a dégg ndax du wax ci wax ji man nga sosol ku ne fenel ku ne ba mu des man man maa la dàqa wax foofu fexeel ba mu reculer nag gars yi benn affaire rek laa leen di wax gis ngeen Coura Macky mi naa feq la saytaane la ah taskatu réew la lu la nit ñi waxal yaa ko def xam nga fan la nekk Las Vegas Las Vegas ku ko xam ci Amérique xam na ay caga rek a fa nekk baaru tubaab yi fa la nekk foofu la nekk di cagatu xoolal jël ay weenam monté ko meer bu toll ne moom monté ay weenam defaraat ko dafa defaraat weeni de dafa defaraat weeni monté ay weenam toog di war ku ne mu duulal ko Macky Sall mi muy wax ne moom la àndal gëmul Macky de day bàyyi ba di ñuy xeex ba pare mu génn wax cinq minutes am xulloog nit ña jeex na war bureau yi ñu koy may xaalis loolu la fi nekk kii ko bon la xam nga fan la gën a bone mooy jëkkëram ji nga xam ne nii moo jur papay doomam ah da koo génnee këram xam nga Amérique boo amee problème ak sa euh, ak sa jëkkër bu fekkee góor nga américain yi du laaj ni mu demee ku góor ki leen di génnee directement da koo génnee kër gi ba pare tuumaal ko sosol ko ñu jël jëkkër ji rapatrier euh, rapatrier ko Sénégal jëkkër jaa ngi Sénégal kii kii kii kon du ko baax du ko baax ma waxaal leen beneen information coiffeuse yi nekk à Las Vegas fee Amérique danoo jël xaalis bu bari jox ko Adji Sarr 1700 mille ana 1700 dollars yi génnal wax xaalis bi fan nga ko def du wax de Coura Macky du leen wax ba tey xaalis bi fan la nekk 200000 la ci jox Adji saar information yi leer laa leen di wax 200000 la ci jox Adji Sarr 1700 dollars yi génnal leeral ko waa Sénégal. xaalis bi nga récupéré ngir Adji Sarr ana xaalis bi gën a leere ko Coura Macky yaa ngi dogam combat maa la gën a mën a informé gën laa xam xeex gën laa xam li nga nekkee dama la doon bàyyi rek nga cos ma lii masadi daala masa karaara ba nga kii tey nag damay jéggal sa yaay du ma ko saaga non ci yow rek laay wax ci yow rek laay wax yow mi nga xam ne da ngaa say wen toog ah ne man ngay jàkkaarloo ne dangay ngay dugg ci aadamu xaw ma ku ko digal de mais dugalul lu bu réguler nag bu réguler waxal du jeex yor naa ci ay jal déggoo ma de man duma ma waxantu sénégalais yi xam nan ma lu ma wax rek dëgg la ku la yaa ngi doog a am combat waroo woon a dugg ci man yàq nga ko ñoom Iran ak ñoo ñëpp duñ combat tey dinaa daamine ba daamine fu dara newul lii man maa la ko wax looy la Sankara Mbaye dafa fay xaalis nit pour mu dem wax aadamoo ni ko doxal Adamo ni ko Njole day tëdd ak man Sankara Mbaye fay loolu moo fay loolu moo fay loolu yàq deram ñu ci bari dañu wax ne dafa am ku bëgg a yàq deram dem wax loolu moo moo wax wax ji ki dem wax aadamoo loolu Sankara Mbaye mu bon mii la te gisoo ni moom it deram dina ci yàqu ndax foo rek la def waa jabaru jàmbur mhm. pour yàq deru Njole rek pour yàq deram